soxna Awa Sarr soxna Fatou Seck soxna Mbodjee Kan soxna Ami Faye soxna Fatou Mbaye soxna Fatou Diouf soxna Ndeye Ngom soxna Sali Ñoom soxna Soda Sène soxna Diouf soxna Marème Diouf soxna Khady Faye góor ñu ngi toll si neuf personnes jigéen ñi cinquante cinquante six Quer saber se cuidando? naa bi loolu jàllee ñoo ngi sant képp ku jël kàddu pourcentage maanaam microcentrage suñu Mbacke Diagne question bi sama xaalis Sall ak microcentrage ak pourcentage sama Fatou Mbaye ñoo ngi sant bu baax ci kàddu yi kàddu yi rafet na lool rafet nañ ko bu baax a baax ah te bi comme noonu ñu koy waxee rek comme bis bu set mën nañu ab génte wala mën nañu ab jàng loo xam ne sunu njariñ la ay tere rek lañuy la ñuy andi loo xam ne sunu borom rek ñu koy tere Sëriñ Tuubaa bindal ñu ko ci euh, téere euh, Aaxiru Zamaan mu di ñu ko nettali kon bu ñu koy nettali war nañ koy déglu bu baax a baax te jël ci njariñ loolu xam ne li wax bu baax ndax topp ndigal suñu borom yi la ñu fi wax bàyyi tere yi topp ndigal yi moytu loo ñu lu mat juróom benn wala wala juróom ba juróom ñett muy jëw ak wax lu dul dëgg maanaam fen ak njistal ak rambaaj ak maanaam xaajal ay di daal nga xam ne comme ñeenti yooyu ma ñu wax rek dama koy tënk ñeenti yooyu rek sëkk maanaam doy na réunion ñu xam ne lii mu ñuy wax li ñu ko jàngal nga xam ne mbindum Sëriñ Tuubaa la nañ koy déglu bu baax te di ko jafe ndax li dégg di neex neex neex neex gat dégg jafe ko moo gën a neex kon yàlla nañu sëñ Tuubaa dimbal ñu di ko mën a jëfe li ma ñuy li ma ñuy wax ndax jëmu googu mu wax baaxut lépp loo xam ne da nga ab jullit nga nga ne ab jullit laa lii dalay yóbbu sawara wala lii dalay alak wala lii mbugalam mbàmmeel la li la ko moytu loolu chaque jour ñu di ko wax war nañ koy jàpp bu baax nga xam la ñuy jariñ kon jëw yomb na lool sama classe bi yëpp yomb nañu lool ndax jëw moom dafa yomb waaye nañuy jéggulu bu baax te di ko mocc li gën a mën nag la jóg di bon bon dégg wax ci fen ak mu mën doon day dem ba alas mu baaje ko jaal suñu borom na ko maay doomi jiw ak jiw maa fen fen yi kon loolu dana ko nekk jullit bu ne war na koy moytu ak lu mu mën a rek ak lu metti metti rek su mu tëroon sax di ren sax waxal dëgg ndax dëgg moom mooy njëkk mooy mujj te kilifa yi ñu jiital yëpp ci dëgg rek la ñu ne dëgg la ñuy yar moom la moom ñuy jàngal kon nun ñi nga xam ne dégg nga ay taalibe rek lañ nilo ana